tàmbalee ci yalla day war ab julit sa su ne sa yu bëggee wax mba jëf bismillah lay wax ni ndem wax na ko la ci top moy julli ci yonent bi ak ñoñam ak isabam ak doon yonent bi khadim rasul la tuddu mbàkke modi ahmadu mangi ngi ko nan jaajëfati mom mi ma tudde ahmadu kullu junu dihi aw junuuduhu noo di ay soldaaram ñi meeg dëgër tey moytu tooñ moo war soldaaram noo si ñëwoon pactu soldaar ca kanam sëriñ Saliou nan ko ñemee te doon ay gor sunu digg ak sëriñ Saliou ndax noo ko ne woon dañuy jàppe sunu bopp ni jëy sun ba demoon Badar loolu moo waral jëy sun moo waral diwaanu silkul jawahir fi axbaari saraayir té ñooña dañu seni dagg seeni bopp ku dee dem àjjana te fii kenn daggul suñuy bopp lu mat a bàyyi xel la yi fii jaar yépp ak yi ñuy wax yépp maanaam dara du ci dara li dara mooy fasiyene yéene dool sëriñ soldat yi sëriñ Touba par la non violence loolu rek kay dara ni da ngay toppandoo yi woon ca dar te ñoom ñu daan dagg seeni bopp di sànni fa dar te yow kenn daggul sa bop lu di la bundu kata kon ke da nga wara sante sant bayam ci bundu kata sama gañi nan len gore jaayante duy caaxaan lo gis mu da fay jall bu yando yit du fa nan ku ñu japp mba ku ñu raje te nga yaakaar khadim rasul cant tu rëy la wara a hmm ku ñu japp mba ku ñu raje te nga yaakaar xaadimu rasul cant gu rëy la war a doon waaw ndax yaa gëm xaadimu rasul man de dama leen ñee ci i. daraje yu kawe yii waaw cey ku xamoon yéen ñan sakku ci yéen daraje yii yàlla na ko tedd ki def bu ëllëgee yowmal xiyam mu jéggal ñu leen di bundu xatal waaw ki xamul faaw mu jum salaamu ala man ittabaha al huda Obrigado, meu